tak sama ñom seen ah tak ci rip ma and ak lan namu ma dara ak les ak ñom seen dina ci dimbali góor yu bari parce que am luñu bëggona wax luñu bëggona xam mhm. té dañu koy am kersa wax ko té na leen dimbali wax leen bagage ci nit ni luy njëriñam luy ñam waaw pour rawati na ay fer fer bu wex bokku na salañ salañ mais léeg-léeg jigen di am uniforme po ci seen ay kawlal ñu bal ma ci kàddu

séduction loolu euh, maanaam xam nga séduction moom dafa war góor. war jigéen comme dafa war jigéen waaw. léeg-léeg jigéen day na jonge mais dafay rëy. waaw mais bu rëyee góor moo ko war a jëli. waaw waaw. waaw xam nga euh, toujours rek euh, dañuy nekk ci sujet bi nga xamante ne moom nga abordé mu nekk jonge mu nekk sujet bu nga xamante ne bu extraordinaire la. xam nga defara dañu war a defarante la. Mm. plus ak moyen la pour lampe bi am il faut que plus ak moyen. takkalante waaw pour que mu am donc il faut que. ñu ñu jàppalante pour que li ñu bëgg harmonie harmonie bu bu bu neex bu mhm. normal mën a am si suñu diggante dëgg la comme koo ji li mu wax euh, c'est intéressant parce que aussi tamit jonge dafa war jigéen même war na góor mhm. ndaxte da ngay gis parfois euh, am na jigéen ñoo xamante ni bu ñu jógee dugg ci salle bi di préparer bés ñu ku góor ki aussi day xaar mu génn moom it mu dem def ay bagages am ñëw xam nga loolu dafa neex. dafa neex donc jonge du bu jigéen ki kese moo war a jonge ko góor ki aussi war na am ay bagages personnels yoo xamante ni kii bu paree kee tamit pare ca wet ga. non bagages yi du reye. waaw xam nga accès da da dañuy wax. bagages yi. voilà xam nga dafa am dafa am benn tout tax tout tout excès est nuisible à la santé. Hmm? alors euh, bu fekkee dafa ëpp rek. dafay jàpp ay ya mu tepp ko. mu ne ay yëpp yaa ngi koy yi keppe du yii. yu dijj yi ñooy keppe. ok donc yu dijj yi ñooy keppe xam nga kii. mën nañ koo bañ a takk sax. ci ci ci ci combat. mun nga koo def say dégagement jaabante dem ak ñoom. bu combat jotee nga tax ko ci baatu ko góor gi takk ko fas naan ko ali léeg-léeg nga dina ko wékk ko fee.

waaw ah, euh, euh, parce euh, que non parce ah. que warul. donc su fekkente ne ni poñe nga dugal nga sa loxo da nga poñe jox ko nii rat. mais day fekk fer fu mu nekk. fekk mu ngi ci mu ngi ko mu ngi ko comme. takk ci ndigg li wala ci baat bi wala. ah mbaar. du jag ah. waaw waaw mais dinañ mu dagg de ci yàlla. fekk mu ngi nii. waaw yow sa ginnaaw fii ci. ok waaye du nag. non xam nga boo ko téyee nii. Mm. da nga koy da nga koy da nga koy moom. Mm. parce que dafa warul warul génne sa loxo warul warul rëcc aussi quoi. Mm-hmm. donc da nga koy téye. waaw mu am doo ko dagg nag. non bu ko jaree mu dagg. dafa dafa cher léegi mu xëy nasaat oh, bu daggee mu jëndiwaat. te balaa neex sax mu dagg fekk yow lal nga sa darab bu weex. Mm. yow yaay lal yow ku góor ki da ngay am say am say fem ni mu amee armoire am noonu ngay amee sa armoire. am nga say produits yoo xamante ne yaa koy defal man maay composé samay produit mm-hmm. yooyu mbaa produit ni ngeen amee seen produit di ko jaay man noonu lañ may rangee di ma di jënd si man ay ah, ay produits. yan genre produit produit non yoo xamante ne nii du ma ko euh, pare ma pour jafe parce que saa yi ma defaree ay bougie man naa koy composé sa loxo da nga koy tooyal ba mu tooy yaa ngi ko dugal si pat bi. Mm. am na benn pat boo xamante ne moom nga yor sa gémmañ da nga si log galaas ay glaçons da nga toj ay glace lokk sa gémmañ. foofu toj na de. waaw <laughs> léegi glaçons yooyu moom ko ëpp. waaw koo ji koy ëpp. partout fépp fu koy seral. oh. waaw léegi glaçon yooyu da nga koy bàyyi si nopp bi. Mm-hmm. bàyyi si baat bi mu wadd. Mm. nga bàyyi si yaram bi mu saaraan. fekk nag lal baa ngi commencé nag du gejax. ci sa yaramu partenaire. waaw sa yaramu partenaire fekk lal bi warul gejax. bu gejaxee rek da koy gêner. mais dafa war a waaw warul tooy. mais dafa war a am benn chaleur bu nga xamante ne dafa mel ni climatiseur. Mm. fekk yaa ngi yóbbu ventilateur bi nga koy yóbbu mu koy ëf xam nga tàngaay bu metti bii nii bu ko defee nag moom lépp lu mu yëg rek ak produit bi nga xamante ne moom nga yor yow sa loxo mhm. Mhm. produit boobu nag da nga ko koy commencé di diw nga commencé ko ko di diw partout comprendre nga produit bi di di dem mu tooy xib bu ko defee nag yow sa sondeel bi nga xamante ne yaa ko composé dafay nekk partenaire bu nga xamante ne ni ñeme na ko te xam na ko te bëgg na ko nga commencé nag di ko ko wis bis day fekk mu bëgg ko ah. loolu du métti. non si dépend. non c'est que xam nga salañ euh, salañ. Mhm. ak bari bagage dafa bari. xam nga am na góor ñoo xam joge nañu. man kii li mu wax tey maa ngi koy doog a dégg. li mu wax tey maa ngi koy doog a dégg. nee na moom day composé lan sondel. man dama am sama produit yoo nga xamante ne nii am na fii benn benn benn boîte lay nekk. waaw comme genre euh, racole lay nekk. Mhm. wañ la xam nga am na level high level. Mhm. voilà ñun nag euh, football ñu si championnat yu ndaw yi quoi donc. amna sexualité sexualité dafa am ño xamante ne dañu xam valeur dañ koy waaj fi fi fi ngay fekk ni rek mu nekk si waaj bi rek nga pousse ko ku <laughs> dafa war a nak nag wax dëgg yàlla nag commencé def comme ça ku dafa war a après jóge ci waat waaw mais le matin bu ngeen commencé ngeen commencé di def lu ñuy wax phase préliminaire waaw fofu nak la bëgg ko dugg